Ah, mi ngi ci page dix-huit bi euh, ci suuf euh, mark maa ngi suuf ñi ngi dem ci bindab Seyda Kine ak Alaji Baaba hmm. ci xanaa bi lu yedda yi ci question neuvième bi hmm. li ma la bëgg a laaj misri maa saa yunkiroo ala Cheikh Ibrahim waaw li ñu weddi ci bàyyi lan la lan la ñuy ci bàyyi bàyyi la ma li ndaxte moom dafa doy jaaxle booy yuddi bàyyi lan nga yuddi ci bàyyi ku xam ne moom xam-xam boo dem moo la ci fut bu dee jaamu yàlla moo la ci mat bu dee ci mbaax ak léewet ak tabe moo la ci man lan ngay war a yuddi ci moom laa bëgg xam musiri <laughs> yow mi nga xam ne yow jege ko ko aljaabu tonto mooy xayaran ni man de gëlëmal xam ne Assane Sow wax dëgg de <laughs> man de laajte bi gëlëmal na moom misri bi laajte moom <laughs> ah gëlëmal na de mm-hmm. ah, kullu shay'in yunkaru alayhi am ban yëf bépp yëf bu ñuy mën nañ kontra ci bàyyi seet naa ko mm-hmm. ah, wali manam tàqul lu taxul ne maasaa yu sa dëkku bii fii lan la ñuy dëggal ci bàyyi lañ ma waroon laaj waaye lu ñu ci war a contre mm-hmm. fii leer na xasara ndax takk ba sax baabi ci bunt bi après boo ko lajee nga lu ñuy dëggal ci bàyyi ma gaaw foofu man naa laa ci gaaw a tontu mm-hmm. ci lu ñuy wéddi ci bàyyi mm-hmm. wakkaay fa yosoroo naka ñu takkee sarakaloo ma ana cheikh naka cheikh cheikh ibrahim ñoom bu ñu ne cheikh rek bàyyi la asxaroo fi yal na ko alaw yàlla fi hasa samaan samaan bii alfaatir yàq yi ali si nga xamante ni taqalaba gañe na fii coom alul jahli ñi nga xam ne ñoo réer ñoo gañe tey ñoo yore ma socc alul jahli ñi borom yore parti mu nekk ma sori ci tey gis nga lii kat moo tax Sénégal nga jaayu jaxlu boobu moo feeñ ci bañ defee woote Senghor Lamine Gueye Senghor gañe ndaxte booba réer moo ëpp waaye bu nit ñi xamoon amoon xam-xam kon kon léegi Lamine moo fay des moo tax na bàyyi mi xam ne xamoon na moom ba ñu waxee mu ne man watee lu ma Lamine Gueye Lamine Gueye lay watee su ma fekkoon ñaari bant bu dëng ba ñu bind ci Lamine bu jub ñu bind Senghor man du ma watee Léopold man Lamine Gueye lay watee te loolu mooy li am li xam nga nit ñi dañ foog ne ah woote Lamine Senghor dafa am lu ñu cay wane rek waaye ñoom ñaar woote ba dëgg dëgg dëgg du foofa wane ba feneen la ba Senghor gañe rek la Lamine gañe ñi ñi ñi Lamine dëgg dëgg voilà ñoo gañe ndaxte ah laa tëj la xam ne yow noonu laay yow dama naan laa war a léegi nag nga gis koo xamante ni xam nga iman yàlla ne waroo farra koo xam ne amul iman ñu ne war a farka kon nag leer na moo tax bàyyi ne bàyyi bàyyi na ko gañe bàyyi na ko dañu gën a bàyyi ñu ne ko bàyyi dañ leen gañe mu ne man watelu ma lemin gi lemin gi lemin gi moom xam ne may gañe ci nga déggee war soo yëmtu fi asa tey nag jamono bi am na jóg dama diit mag waaye wa inan la fi xiirati mel ni Muhammad man fiire naa ko koo xam ne mu ngi sàkku Muhammad rek naa ko dàq tamit ba sooy fi asa li man léegi ku ku bokkante ma waaw léegi ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon booba ay kilifa yi dëkk réew mi kilifa yi yi kan moo ci ànd ak Senghor ñëpp ànd ak Senghor moom boobaa kenn te fekk nag dëgg-dëgg mooy xalifa ak kan mooy xalifa xalifa is kan ne xalifatu kenn wax ko de moo ko wax kon nag moo gañe moom bu ñëwee gañe moom moo gañee ndax dafa bëggoon moom ñi ko doon bëggoon wàcc nañ ko leen rënd man kii laa bëggoon dem leen ci na kon nag lii nag man li ma jaaxal daal nga laaj ma waaw bàyyi lu tax ah, duñ ko dëggal wali ah, wali ma lam tàqul maasaa fii nan nañ koy diggalee ah kon nag lépp loo xam ne ñu koy weddi ci bàyyi rek man mooma jax lii de su ko laajoon moo gën a jege la as la la ana xasra saafiatal baabi aqrabu wa kayfa yusru salika ma ana cheikh asar foo laa taxoon ashara wala fi asa saman alfan bàyyi yàllaa ko fay jamono bi yàqu bi wala xaqiqatu xaqiqa wala soor yi ma ngi ci seen gannaaw yi gannaaw dégg nga bàyyi mëstër ba dëgg ga dëgg ga muy laaj ma ngi ca gannaaw yi ña ña koy laaj dëgg ga dëgg ga ak seen gannaaw dégg nga wax de wal xaqiqatu dëgg ba waraa soorihim añ ca wàllu seen gannaaw wama daa otu aadul kenn wala wama daa otu illaa jëm ci yàlla taal euh, dégg nga aadul kenn illaa jëm ci yàlla fi ay semaine ci bépp jamono amul ku mas a jox oot di ñu jëm leen ci yàlla illaa euh, euh, kii la ilaa qóobila kay ilaa qóobila bil inkaari lu mooy dañ koy jël ay kontor dëkkandi ko moom ku jóg otel yàlla yàlla yu kese rek kenn contrôle am xam nga boo gisee léegi nit ñi kenn contrôle day woote bokkaal sama sëriñ mooy yàlla li koy seytaane seytaane waaw koy bàyyi la koy ku ko kenn contrôle on dëgg waaw sama sëriñ li ko yàlla may kenn moom moo rek ko xam mun a wax dëgg waay wax dëgg waay bàyyi leen ko waaye yàllay kese rek benn yàlla am kudul yàlla amul ku ko jaamuwul koo mënta jaamu safara nga jëm nga jóg di ko wax ci dëgg tey dëgg tey gi ñu ne kii jamono jamono yi noonu bañ ko defee wut daan soit yàqu sa yàqu ñu ne noonu rek ñu ñu gëm suñ sëriñ yi nga tey boo ko waxoon Sénégal ne yàlla rek moo mën a maye ku ko toppul doo safara nga jëm ñu ne kii ñu lay konto ah waa li jar na kon mu nag képp koo xam ne ote nga ci yàlla tey aw ma daxa ahadun ilallahi fi ay zamani ila qoobila bil inkaar lu may dañ ko dikkale ak contre fa kay fa naka lay demee isaa kaana bu nekkee asaman jamono xaasa bi xaasa asaman jamono bi jamono bi nekk nii jamonoy démocratie ak socialisme ak libéral ak jamonoy bakkan bu ndagaw communisme ah jamono boo xamante ne mooy ku la neex ku la neex jaamu moom bëggoon ot tey ne yàlla benn yàlla nooy def wakkaa nekk naa a daay wootekat a atamu daay moo gën foor ci daay wootekat yi laa jëm ci yàlla baada Cheikh Tidiane gannaaw Cheikh Tidiane mooy wootekat bi gën a rëy bi gën a rëy ci kaw suuf mooy Cheikh Ibrahima wax na dëgg ah wakkaana adaaye asamu daayin ilallaahi baada Cheikh Tidiane radiallahu wa nabi ak nabi sallallahu alayhi wa sallam subhanallah sët na moom yàlla alasi inna xaasaa su al laaj bi de c'est une affaire la ajibu bu yéeme de ah sa waay te laaj bi moom yéeme na moom wax dëgg wax dëgg rek laaj bi ma laaj nii ah laaj bi doy na war aw maa tara xanaa soo ala ala ala xalamaa sariyaat naka borom xam-xamee xam sariyaat lañ jàll àlla si ne ñaa xam ñoo war a sëtu anbiya ñoom ñi ne ñoo def anbiya fi semanin euh, ci sama ci jamono xala an tàqoola na nga wax li war yaa ñeen kat ñu ñoom ñii nga wax ca ci kenn minute ak yow tey néew na ko yo qaala laahu taala ak ci tuuti xoolamaa yi nga xam ne ñoom borom xam ku ci yo qaala laahu taala tey bariwul de mooy li mu la firi alquran demal nga wëri àddina bi léegi dem waxuma fii moom réewu arabe yi doo gis fu ñu lay firi alquran kiif école ba la jël benn aaya boo xam ne moo leen intéressé ñu dugal ko ci euh, cours bi bàqara ba naas de amul ci benn réewu arab Sénégal ñuy demal kër yi nga xam ne moo doon kër yi daara doo fa dem fu ñu fa da suri bàqara ba naas néew na bu dee am nañ néew na tey jii mi ngi nii rajo yaa ngi nii firi alxuraan carrément nañ ko war firi bariwul kon nag mu ne kon nag néew na tey nit ñi borom xam-xam ñu ne ñoo doon ku ci wax naan xaalaaw taala wa qaala rasul wala qaala rasul ilaa wa qaala laka zalika kufrun ba léegi sax da ngay dem ñu kii nii li wax ñu kéefir la yàlla rek ah tey kat nit ñi moom ah dañ daan laaj ku jàppaan xiram ñu ne waaw lu mu ne waaw sama xiram bi li tax ma jàpp ko mu gën naa jigal yàlla rek tey jàpp sëriñ si xam sëriñ pour ma gën laa jigal kon mu yër la ni ah yàlla moo xam ne àqara bu moo la gën a jige ma dikk jël koo xam ne jaar na si ma diggante mu gën maa sori loolu du loolu du musiba xam nga nit ñi dañu war a set sama sëriñ bi gën maa jigéen de yàlla la gën a jigéen kon na la sëriñ bi gën a jigéen kon koy musiba di kaam déedéet alquran nga war a gëm alquran moo ne yàlla moo la gën a jege Samba moo la gën a jege yonent bi moo la gën a jege Cheikh Seck Diagne moo la gën a jege Baye Niass moo la gën a moo la gën a moo la gën a yàlla la gën a jege kon fii nag gis nga li gën a xar xol de dem ba suñ kër gi tey dem nañ ba réel euh, Baye boo ca ko boo xamante ni day mel naka fii ne moom yëg nañu yàlla bu soobee Baye. laa ilaaha illallaah yàlla ñu Baye may. loolu la ñu wax moom nga la ñu loolu bu ñu ko jënd sëriñ keneen sëriñ ñëpp a ngi koy wax bu soobee suñu bi lu ñu kon nag lii muy musiba gën a nekk kon nag ñëwee sax bu ñu ko waxee ñoom tarbiya mu ne waaye ñu tarbiya raw ba nga dem ba xam ne gën a kenn fi nekk ba nga dàq nga kéeféer foofu di nga kéeféer gii gu mujj gii kenn mënu ko defee kéeféer gën a neex na defee moom dafa bor dafa xamal waaye kéeféer boo xam ne moom dem na ba dem moom dara amul sa sëriñ dàqal la mooy dàq nga wëlbati ko jël sa waxi sëriñ mu gën la waxi yàlla wax waxi yonent waxi secteur waxi bàyyi te moo fi nekk su fekkoon ne jëluñ seen sëriñ si wecce koog yàlla kon ñu ànd ñu topp yàlla waaye tey koonu ci fecc mu ne man sama sëriñ fii laa ko defee ci rajo rajo bu nekk fii ci ci ci garaayo ba ñuy wax ci affaire fecc mi ñu jox ma ma ma dugg wax ci benn waaye moo jël mbokk ci ma ne ma baa ñes bu dikkoon tey ay fecc mi dañ fecc ba njàmba kël kël ko waaw loolu kon sëriñam la gën a la gën a fonk ci bàyyi kon na rawatina yàlla yàlla moom yàlla mu bokkatul léegi waaw bàyyi jëf moom jàppoon moom bàyyi jëf teg nañ ko fële moom kon de lii ah li dikkee wax ni ñu yàlla kese ah, kon nag ñu ne ko saalika kufur nga yow mi may laaj nag wala yax fa wala yax fa umpul alaka saa yi yow laajkat bi alkarim tëdd bi an ne laa xayraa amul benn yiw amul yiw wala najaata amul mucc illaa fi kalaami ci wax yàlla rek nekk wala wa kalaami rasuli ak wax yontu yi te yow yaa ma gën a xam tey amul foo mën a jëlee yiw amul foo mën a muccee lu ma ci wax yàlla wax yontam waaye léegi nag lu tax nit ñi kon xam nga ko sama wax sama firi alquran bi nit ñi tey firi alquran la ñu waroon delsaat dekkal ko bu ñu bëggoon nit ñi euh, tegu si siraatal mustaqim mu ne ko nag yaa ma ko yaa ma gën a xam ne ko gën mën tabax jaaroo foofu ah, kon nag ah foofu maa ñoom ñaar xayaatul xuloo bi mooy dund xol yi ah alquran ak hadis mooy dund kay xol xam nga dama la wax farata ak sunna farata mooy biti sunna mooy biir farata mooy dikk dara sant orienté sa cëri biti dara defal li baal li déglu li xool li fóonal li mosal li laal li bàyyi lii bàyyi li bàyyi lii kooku saa yi la war a war a kon mooy mooy fan sunna nag mooy nga rafetal sa ruuxu rafetal sa xel rafetal sa xol ak sa bakkan loolu mooy sunna moo tax nag kon nag bàyyi la bi saayir saraay wa nuurul mubiin bàyyi la du njëkki ñoom kële moom rasoolu sanaa ah, benn rek la toppatoon rasoolu euh, euh, baatin baatin rek kii nag dafa dikk moom mooy rasul bi xaqatan moo doon si ñaari yi moo tax ki dëgg dëgg dëgg mooy sa rasul bi nga xam ne kenn du ko tudd te mooy yonent ak yonent yi ndaxte inna lanaa martabatan ñoom ki am na ñun ma am nañ martaba te ñoom ay martaba lañ mu ne am na ñun ñun ñun am nañ martaba xamante ni fa kenn ñu ma ko boo ko wax sax te ñu lay kooku nag mooy ah, eh, kii bi wax ne eh, ahlal bi saari naysaan mawlidi xëri insaan ndaxte yonent bi ne mi ngi ci biit ndox weeru weeru biir mooy euh, weeru nisaan ci la juddu mu ne yoo xam ne mooy juddeekaay ki gën ci nit ñi xayru insaan mooy nisaan moo tax rabion et avril ak nisaan ñetti weer yi kii nag mooy resool bële kële mooy resool bële kii mooy resool bii fekk ne ndax xam nga li wax de lii mooy li xam <laughs> da xam ne wax kon nag lii ñun dañu war war xam ne kon dëgg dëgg dëgg dëgg doole yi mi ngi doo ko agsi ndaxte jamono bii ku am doon doole moo na fi oto nga xam ne mën kii dikkee koo woon ay fetal du dem boo ay mbóot du dikk ak doole joo xam ne koo ko xool rek naxu ah seetal yéeg ci tamale ci ci kaw man kaw kaw kaw kaw bala kooba ay millions yi nit wër la nga wax ashhadu an laa ilaaha fa qaala xool ma jësu woon faaru te ñële dañ daan dem xeexal waxal waxal ma rey la wala ma dagg sabaa loolu loolu xeex boobu boo ko bëggoon doxatee dina ci dina ci dina dox kon nag kii nag xam nga ne xam nga dëgg yàlla di ko di ko monsieur wax wax mooy dëgg de kii mooy ci gën a rëy tey ci nga xamante ne mooy oto ak umpul la wala yax fa alayka ayyuha saayil alkarim an laa xayra wala najaata illa illa bi kalaamillaahi wa kalaami rasuulihi fa huma hayaatul quluubi wa mooy dul xol wa maa tamasuka du jàpp bi ci moom illa mu'min koo xam ne ko am iman mooli suñ ko xam dafa selal moom dong moo koy jàpp borom ngëm yàlla bu set wicc mooy jàpp alxuraan ak hadiis waa léegi nag alquran kan hadis xam nga fii nii boo gisee fii ñu def foor ñun da ngay dégg da ngay jël alquran nga xool ko ci téere te alquran dëgg dëgg dëgg moom allahumma inna nas'aluka bi fatihati kon fatiha fatiha ba ji lii ñu bind ci kayit nii fii la bàyyi ñu bind ko ci fii kon nag kii nga xam ne moom la yëfi bàyyi koo moom mooy quran ka nga xam ne moom la yëfi jaare moom ñu ne ko sunna kon nag kan mooy jëmm ji dëgg-dëgg yàlla moo tax fii boo fi demee euh, Cheikh Tidiane day wax ne ayni rahmati aynil xaqi talhatil ay jëmm la ko def moom du ay téere foofu ngay dem nag bu ñun fii àgg tey fii ñu àgg tey du kaay kii mooy kan waaye kooku mooy kan kuy alquran lañu wax xam nga luy waxuñ luy alquran kuy hmm. ana luy hadis kuy hadis kay kon nag <clears throat> loolu laa xam umpale kon nag wa maa tamasaka bihima ila muminun muxlisun a wa maa haada teggul xarma coomeel ila daalun mudinun koo dégg na wan na gannaaw koo dégg na réer nag mooy koo xam dafa réer wan gannaaw alquran wa kama taalamu nag nga xam ne may laaj ana seex naka seex xaada matt na matt xam nga matt xaada dama matt moom seex moom Cheikh Ibrahima alayhima ci alquran bi na waa ji si ay dégg jëm xam nga dégg yi ci moo ci mat fii fotee na bàyyi ko mm-hmm. bàyyi nag xam nga yow mi may laaj bàyyi dafa jël alquran ak matt ko ci ay dégg jëm mm-hmm. ah ana alayli ci biir guddi wa atrafu naari ak suba mm-hmm. lii la bàyyi jàppoon ci téere bi moo tax mu koy jàng juróom-ñaar di ko tëri juróom-ñaar lii de xam nga ne bàyyi ci la nekkoon laa tusawisu du turbale ali ci moom alqanaabilu ay bomb guerre guerre mondiale ca la waaye bomb it bomb yi nga xam ne mooy ñu koy xas naan baal Ibrahima nangam Ibrahima nangam yëngal ko mukk alqanaabil wala bi saariq yaa ngeen yaa xamante ne ay missile ay bomb ki missile du ko teree jàng alquran ba jukkim ba ak li nga xamante mooy jàngale xadis buñ nekk jàkkee ah lii de laa bëgg nga xam wala yuy bu ah, du ko bëgg wala yee tamit ali illa bi hubbi kalaami yi lu may bëgg ba waxu laa waxu laa bi loolu taxaw bàyyi ci alquran ak hadis ah lu mooy rek bëgg waxi yàlla ji bëgg waxi laaw ga waxi laaw ga moom la bëgg moo tax ma def mu sukkandiku yéen wax ji sama wax waa mu nekk wala yatamidu alay illa man yuhibu kalaama laay maanaam kenn sukkandikoo woon ci alquran lu ma xam ne wax yàlla wa rasul ak yonent sukkandikoo nag alay maa ñoom ñaar fay seen boobaa laa maanaa amul benn maanaam li taxi bii pour weddi lii ak réeréer ko wa takfir ak yéeféer la ko gannaaw kii dafa matt ci alquran ak amul benn maanaa nga de ko naan waxoo dëgg dangaa réer kéeféer nga man de jaaxal na mm-hmm. ama tara xanaa gisoo mm-hmm. maa ne xam ne daan dafa teg xel ci moom min moo taabat na bi ni mu topp yonent xanaa gisuloo na nga gisee ne moom ah ni mu topp yonent bi salaa salaam fi aqwaal yi waxin waxin waxin yonent bi mm-hmm. moom la bàyyi di waxee wala faali jëfam jëfinu yonent bi moom la jëfee wal ahwaal xaal mooy situation xaal yëpp melo melokaanu yonent bi wal maqaamaat mboolem taxawaay yi yëpp taxawaay yonent lay taxaw wala danga wala isa danga ak rañaan isra bi maanaa ca nëbbu nëbbu ya maqaamaan ya ak israat ya yëpp bàyyi dafa taxaw taxaw ilaa xari saalika jëm ci bokk la loolu min maa ci loo xamante ni laa tante ko man tudd bi ci al alsu la mi loo xam ne laa mi ñu la ko wax bàyyi fa mu jaar laa mi ñu la ko wax war taktu wala bi ko alaqaram xëlim xëlima yi subhaana subhaanallah mukk alazim bàyyi fa jaar xëlima bind ba ne liira naari bind nañ bind bind ba bëgg a dee waaye mënuñ ko wax mukk kon de man de ba tey maa ngi seet fuñ foo foo mën a jaar wi di bàyyi daal moom laa moom a gëlëwoon moom laay seet ba tey aw maanaa ay taqanaa gisoo taalifoo taalifam bi fi sariyaati ci sariyaat bi wa tariqati ak tariqa bi wal xaqiqati lii mooy sëriñ yëpp la la def taalif sariya boo demee bu lay def sariya tariqa def na def na hmm. kon nag lii de dëgg-dëgg yàlla ma ne kon lu waaw koo wa askuru naa tuddoo lillahi ñal yàlla minhu xaasatan maanaam dana la ci doy ngir yàlla xaasatan mooy rafal ma laal rafal ma laal maa naa la rafal ma bi ci wax du ci sareet ok ak lan wala sirul akbar sirul akbar lu muy wax du ci xàq la ah kon nag fa ita taala ata boo yoree rafal ma laam boo ko yoree tajidoo da nga fekkoo maa taraka bàyyi dañ leen benn preuve li foqaay ñoo fi nga xam ne dañ fekk xaalaat taasubihim seen par parlo taasu mooy par parloo doole gis nañ par parce que ñoom ñëpp dañoo complot woon par parloo contre bay ci ci xabdu doo leen fekk ñoom ñi nga xam ne fuqaa ak seen par par ba Euh, naan neet naa li kulli li kulli ci bépp wax duñ fa am suñu barab wala yu yu du koo du kitaabu téere wala sunna loo xam ne moom man koo indi sukkandikoo alxuraan hadis amul kon nag sama influencé na moom Cheikh moom Cheikh Ibrahima bi saalika ci loolu jéemee ma lépp loo xam ne xum ñoom lépp loo xam ne fukkaaw ñu ci rek. bàyyi bi mu indee réforme la ci la ko effacé lépp li ngeen nekk nekkul man maa nekk si man mi nga xam ne jël naa sama ndeyjoor mi teg sama càmmoñ faqat jaa dikk naa ala ko xaq bi mu indee téere boobu xaq nee na déedéet wasaaka dem albatul bat way saaraay te boo gisee asir ak ba xaa boo gisee sirul akbar hmm. ñun de gis nañ ko yaakaar ah dafay tàng walaw balaxat même bu jotee maqama bi tilkal fuyo daal yi ca fëñ ah boo demee la nga xam ne moo ci nekk ah mu ta day tàng ci jib xama xaral wala jaral law balaxat maqamaha fi tilkal fuyo daati wal maarif yi ak yaa fa nekk ci maarif wal maxsaay di xëy leen sooy bopp nga xam ne ci nekk ci su ay sirul akbar waaye sirul akbar nag ñun duñ ko jàng te man nee naa leen sirul akbar du borom borom sirul kitaab keneen dañ leen téere sirul akbar téere ba du téere mooy sirul akbar mu ne yellantoon nag nit ñi nag ñu dem nag seet nag téere boobu kaay bi ñu dem seet téere boobu ah daal seen nga xamante moo ci nekk nag ci ay biir yi nga moo ci nekk da nga gis nag kon nag fuyo daal yi ci nekk ak maarif yi ci nekk ak janoo yi nga xam ne moo ci nekk wal maqaamaat yi ak taxawaay ak yi nga xamante ni maa takkalaam mu tax fi ay ca wali benn wali yu xam loolu jiitu Cheikh Ibrahima wax dëgg de lii nekk suñu benn wali yu ca teg gémmiñam la ko ne ci junne du ma njëkk a xam ba ci ba ci baroom ba Cheikh Tidiane ba ci asaabu Cheikh Tidiane yëpp kenn waxu ci li li ñu wax ci seen akbar am ko ko a bàyyi nee na waxu jàmbur nekk ci lu mooy loo xam ne xanaa ba mu dikkee di nekk li benn wax boo xam ne mooy Abdoulaye Wulul Xaaj lii benn waliyu maa takkalam fiyaa waliyun waaye waaye xam nga nag mooy xay wuri téere bi nga xam ne ci lañ war a xamee kuy bàyyi ñu ne mbóot la bu ko kenn laal ah? Oustaz Gueye mi ko laal moom ab dox la xaw ma réew dafa réew waaw xaw ma xam ne parce que <laughs> ah léegi bàyyi na li ma ci naq li ma kenn doo dégg mu wax ci ne Oustaz Gueye li mu ko firee du dëgg doo ko dégg de kenn du wax ne lu tax ma koy firi ci ñe ñee la yem waaye us kenn ku ci ko yónnee ma message ne ma lu tax nga def nanga <laughs> ma soog ma ko am ndaxte man dama am ndigal borom moo jox ne ne ma lépp lu ma bind jox laa rek si ndigal te si loolu akbar moo ko bind kon amu si ndigal waaw boo amul ndigal na noppi léew sa waay xamoon tax jàngul el ba ngay jàng grammaire da nga jàng balaax da nga dégg xaqiqa da nga am marifa lu arab baat baat bokk na benn baat mën naa firi ku ñetti firi nga xam fu bàyyi firi bii loolu boo ko mënoon toogal nag waaye nag ñu ne rek xam nga lu ko defam ja ute kay alal benn waay bi nga xam ne moo ma njëkk a sur akbar wax naa dem ci di ko uti ci mbir na ah dem am benn waay na ko ah, naa ko waaye daal da nga maa jox yëkk ma rokul ko jox ah mu ñëw sox ba dikk ba man dama daal man dem dëkk ba daal mbir daal doon ut benn téere baay bi daf sur akbar waaye daal ka koy ka ma gis am na ko waaye ne yëkk la yëkk la ma ci laaj ma ne yëkk ma ne ah, ko toogal ma dem sama fu mu nekk ci téere ma rocc ko dem ne ko ku la mu ko la alistré akbar ma ne ko demal demal photocopie nga dikk ma jàngale ko mu ne waaye oustaz da nga dikkal ma jàngal ko njëkk a ko njëkk jàngale lii nii kon nag sirul akbar bi nga xamante ni ci li ñëpp benn waliyu bu ko wax waaw ñun nag asaabu si bi nga xamante ni aktaa bi fañ aktaa bi fi ñu agsi ñoom agsiwuñ fa boo jàng sirul akbar mën ngaa xam fi nga fi nga toll lii moo tax man xam naan li may wax li wér la kon bu ci benn werantee demal nga jàng seen akbar su fekkente ni ah, daje nga ku la ko mën a jàngalaat wali am naa baadoo ci gannaaw ah maanaam wali wali kon dama xam ne ah, wala yëtt yëtt kalam fi xaa wali benn wali yu baadoo gannaaw lu jiit lu jiitu bàyyi benn wali wax ko gannaaw bàyyi wenn wali du ko waaw gannaaw bàyyi na ñi dikk ko woote maay maay bàyyi tey lu wax ñoom tey nañ wax ah li la wax de ñii dikk ñii dikk kenn du ci wax lu mel ak seen akbar ñëpp paase waxuñ ko ñi dikk tey nag ne maay bàyyi nag nañ wax ñoom ah nañ ko laaj nañ ko dem na ko fi xam nga xam nga nit ñi daal waaye nag xam nga li ci li ma ci métti mooy seen dag ya moo tax doo dem jege sëriñ bi firi firi seen akbar benn ñii oot demal ooleen mboolem ñuy oote bi ndaxte ñoom dañ leen leen li ca ëpp dañ leen di liiral firil leen ñu doog a jël seen xel nag taawi ko ndax loolu mën ngaa dem munoo dem kon nañ wax ndëg wal wali baadaho illa bil imdaadi c'est-à-dire bi imdaadi nu xanaa ku cay wax moom moo la ko tëbb koo dégg ma wax sirul akbar gannaaw bàyyi bàyyi la tëbb nga wax li kon est-ce que ñun na ko weeru <laughs> ngeen weer misir weere na illaa bil imdaadi minhu rek xanaa moo rek tam fo wallahi maa ngi ci yàlla lan yu sadi ko bu dëggal bàyyi fi ma yàqoole li mu wax ilaa man koo xam ne xaada xuus na boo waral xaqaayiq ay géej waxuma géej ay géej xaqee ku géeju ku géeju xuusu euh, euh, géeju xaqee man laa dëggal bàyyi wax dëgg de dama koy waxaat foo wallaahi maa ngi jàll lan yu saddiqoo du dëggal bàyyi fii ma yaqul illa man qaada boor xaqayiqi ku géeju ku xuusu man laa dëggal bàyyi xam nga ji boo gisee ni ñu nekk ci pays bi pays bi andi andi ay lambar lambar lambar mm-hmm. dañ xamul bàyyi mm-hmm. waaye bàyyi koo xamoon dëgg te mën na koo xam tànk waxuma géeju géeju faydu de géeju xaqaayiq boo ko boo ko lëmbiwul man laa dëggal baat ndaxte lu tax yow saahir mën nga ca xamee baat baat mën nga ko fa xamee baat baat mën nga ko fa xamee waaye a mën a war a a baat baat baat te loolu yëpp doo ko fa xamee mu mu da dem foo ko xam ne baat am foofu xaqaayiq nga lëmb xaqaayiq la ba xaqaayiq jeex nga doog a wàcc pour seet nag fan laa koy fan laa ko gisee ginnaaw loolu mi si wax de doo Oustaz Gueye wax moom moo ko kii de foo wallaahi lan yusaddiqoo fi ma yaqooloo illa man qaada boorul xaqaayiqi baxaran baxaran géej par géej géej gu jeex <laughs> sama li may li ma naqare laayu ah waay waay gaay gaay yi man de damaa bëggoon ñu toog ñu seet nag waaw ndax géej yooyu nuñ koy xuusee ak ñaati géej la ah. nañ ñëw ñu seet ba xam su ko defee il faut nga xuus ko xuus gi nag du lu ñuy wax ne musaakara xàqatu Muhammad xàqatu loolu loolu ay fu fu la aadiya muhammadiya amadiya xilaaf kooku ay hikaayaat la loolu du musaakara rëms ay rumuusaat la mu rumuus junj junj nag mën naa la junj nga xam dama la nga xam la ma junj la nga dem ca la ma junj la nekk nu naa yow ki oustaz yow ki bàyyi di joxoñ kan la yow mii kan la mu ne nag maa bëgg xam arrièreal demal jaar fële boo boo demee ba réglé ma ma kon boo bëggee xam bàyyi da ngay géej géej ay géej xaq de ah doo ci yem de wajaaba mu jàdd fayaa fiiha ay xàllam ndax mooy foo xam ne ñoo ko la ko baax ay fay loolu mooy fayaa fi da am danga am ay ba ay géej yooyu traversé ak àll seetal booy daw fi ne avion day daw foo xamante ni mooy océan Atlantique da nga koy jàgg nga dikk dëkk ay bokk ay mille kilomètres da ko jaar àll boo xam ne kenn dëkku ko loolu nag boo ko xoolee saa yi bu mu waral ndaxte boo bëggoon xam lan moo nekk diggante ëwlu ak àqlu ñaata ñaata diggante àqlu ak saa yi ñaata kilomètre diggante saa yi baat ñaata kilomètre diggante baat ak naas bi nga xam ne fi nekk ñaata kilomètre <laughs> ndaw bi ñaari kilomètre kon nak il faut nga jagg yoy nga xamante da ko rom waye toog nan may naasa bi yoo may maadal yo may samba jóob may dem jóob yow doy xanaa xamul li lii dama tuuti li lii dara xay fa jëm baye fa jëm espace dang koy gisee yi du fii da ngay tok ba espace yeb jeex ñu do a waxtaan nak li la misra ko do sax gi mu ngi da ngay dagg géej xaqaay xi géej kama géej wa ya fiha a dengan nga eh, fa xafa da faqasu faqsan xafsan xafasan xafasan bi maanaa di tëb tëbaan tëb dal fii tëb dal dalfi tëb dal fii waaye ñun nag ku ci tëbagu ñu ngi benn rek dara am yàlla rek la ko ardu ardu fi mu ne mi ngi doog am fii sunu ngërëm rek ñeent fukki at yàlla te fañ nekkoon ka dëkk ba 7 kilomètres mënuñoo ñëw ci dëkk ba waa dëkk mënuñu leen seet lii lii sakkal yow bu ñu la ko waxee sakkal sax doo waxaat waaw man xisa bi est-ce que xisa bi te xisa bi wér na ne boo ko déggee est-ce que wér na ndaxte xanaa ñoom bu ñu mënti dikk xanaa seen mbokk yi nga xam dëkk daañu mën a xale boobu gisi leen waaye ñoom dikkuñ kenn seetu leen kenn xaw ma ñeent fukki at ñu doog gindi loolu mooy mëccoo mëccoo mboq mi xamul fi fan la réere mooy xamul fi mu réere ndaxte ah lu muy am yàlla demal ba diir lu muy am yàlla demal ba ñetti diir ñetti diir demal ba téeméer diir boo dikkee fu mu ko fekkoon fa ko nga bàyyi mm-hmm. loolu mooy aru taya mooy ku nekk ci pays bii nga dajee moom muy dëng dëng guddeeg bu cëg naan man a man a te xam fu muy waxee man a man a loolu il faut que nga jàggi mo yooyu yëpp ah, kon nag lii day aw munaafiqan benn nga nekk ku gëm bàyyi aw munaafiqun wala naafiq boo xamante ni yu di ko dafa dëggal bi lisaan yi maa loo xam ne laa yëf moo xa déggul bi janaa janaa jinaa janaa yi janaa bi ci ay côté maanaam jinaa nii mm-hmm. xam nga janaa bi wala janaa nii wala naafiq boo xam ne dëggal na bàyyi ci làmmiñam waaye xamul lañ côté la ci côté xam ci dara ah lu tax liestura pour mu sàngoo ndax am na ñoo xam ne ñoo def bàyyi dañ ko def lu tax liestura pour ñu sàngoo bi sóori di tasdiqi ci photo dëggal ah, jaxi la koo ayu ah, méro da nga ayu méro mooy compte mu nga dikkee nag moom am na ñoo xam dañ dikk sàngoo photo bàyyi man taaliba bàyyi la lu tax misri mu ne dëggal nañ ko te daf koo réeree waaye nag wayu nuyu ahloon ci la mën a xotte ak njabootu bàyyi baaja ca la mën a jaar baa am lu may lekk lu ma lu ma tabax ay kër lu ma jëndee ay oto am na ñoo xam ne loolu lañ fi nekkee ah oustaz gi wax ko de euh, ma ma xam ngi ni paasu la kële moom balaa nga koy xam da ngaa xuus géej kële moom xamul dara def ko witti kii moom naa la bokkan di kër dëggal naa ko ndax bëgg am lu am moo tax yàgg ngaa dégg ma wax lii bàyyi bàyyi bàyyi ba ne koo xam ne ah yonent am xorom Cheikh Tidiane dafa am xorom Sëñ Bamba dafa am xorom Alaaji Maalik dafa am xorom boole dañu am xorom gannaaw nit ñi boo dikkee ba bañu ko bi léegi musiciens yi sax tey dem nañ ba bàyyi ñoom wuyu ba boo mar leer da ngay di ku bëgg sëñ bi rek la ñu wooyee léegi ah su ko defee ndax taal ndax taalibe sëriñ si ñoo ñoo fees léegi ñoo nekk musiciens yi musiciens yi yëpp taalibe sëriñ yi Tuna, dengan dalam nga sampai doomi bi imam imam Mor Mbaye mu ah. Wow, ko wax mu ko waw serigne bo xamne bu musicien gis mbeureum daam bu diké gis ko hmm. ah police bu diké gis ko té bu talib yi nga xam ñoo dëgg bu ñu ko duñ gis mukk lool jàmmal kon nak ñi ni kon hmm. kan dañu dikk mbu bokku waxuma ko ko xam dafa dikk maam de nga maam bu bo bay bay bay bay bay rek waxuma wal li am dal hmm. ana cheikh naka cheikh ibrahim lawlaa ana laa bu taxuloo na yàlla koo mu xaafisoo moo ko sàmm bu taxuloon ak yàlla moo sàmm baay wal moo daa fi mooy jeejantaanu moom yàlla koy défensal wa naasiroo moo ko dimbale wa mu ayidoo moo ko dolal ah? ah, wa xaasala moo beddi aadaaw ay noonu ay noona moo leen sànni fële mooy beddi leen su yàlla defu doon lii ma wax nii laa maa xaamal taxaw loolu ñoo la xaayimatun taxaw lu taxaw maanaam li def li ma ot dara du ci taxaw yàllaa ko sàmm yàllaa koy défense yàllaa koy dimbale yàllaa dàq ay noonam li tax lim bëgg a taxaw dara ci tax ci taxaw wala maakaan kon nekk maakaan nekk tey fay du nekkee nii tey su ko yàlla defaloon du am na kon nag wala fi imkaan nekkul ci imkaan abdu am bi ma kaane wax ju neex ju am solo ci arab imkaan bi daal lu gën a yéeme ni nekkee amul nekk gi lu gën a yéeme nekki na mi amul xam nga luy nekki ci nekk lu gën a yéeme ni nekkee wax yaa ngi xool nekk gi ana nekk gi am nu ci nekkee cay misiri moo mën a moom loolu loo xam walaysa fil imkaani addoxo bi ma kaan kafaawu fegal na ko alal yàlla sara aada yi lépp luy ay noonam war na saroo dimbali na ko ale bi seen kaw kamaa woon nag nga xam ne moom yàlla loolu day xaritoo mooy aadam taala yàlla lam ab nam lam ci ab ab soppeem loolu la defar defar Cheikh Ibrahima ba tax na moo gën a bëri ay noon ak contrekat waaye kenn yëngalu ko bàyyi lim dal ci kaw église bi ak li mu dal ci kaw colonialisme bi mhm. ak li dal ci kaw Senghor kenn defu ko te mos nañu di mhm. yow nag nga jël moom waxoo dara ñu jàppale tëj mhm. moo tax Ibou Diouf daf naan wax ne ba gaa yi waaje pour ne dañuy jàpp waaye mu ne jaani ñàngoor la ñuy bàcc laar jàpp def ci guus waaye ninki nank ku ko laal de kii mooy ninki nank <laughs> moom boo ko xool ninki nank boo ko xoolee de su la xoolee nga de waaw <laughs> kon na ko jàppee <laughs> moo tax nag jaan jaani ñaangoor na mën ngaa jënd xam nga xam nga xam nga jàpp ko jaani am na daal bu ñu def jaan ji dañuy jàpp ko dugal ci mbuus mm-hmm. waaye kon nag wali wali yi nga jàpp leen jàpp dugal ci mbuus du kii de mm-hmm. kon nag law laa anal maqaama bu taxal taxawaay bi layes moo daa fawq ak isaarati di nga wax de mm-hmm. su fekkewoon ni place bi laaju lu passé junj ndax li ma leen di wax ni yëpp waxi ay junj junj la laa wax su taxawloo la sit tukat danaa la dolli yokk sama tontu bi boo bayant lakka danaa la ko leeral xaata isa law kosifa bañ ñori woon sax alxataawu la nga xam ne mooy li sango maa da xëy na ba léegi danaa la ko nettali nettali ba nga xam ne su ma la ko teggoon carrément sax danaa la ko nettali ba xam buñ ko teggoon du la amat loo ci yàlla ndax danaa la ko nett nett boo xam ne comme loo gis la mm-hmm. waaye nag gannaaw temps bi laajul ma leeral la loola mm-hmm. ma yem ci fii rek ñu yemale ko fii asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.